asalaamaaleykum rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di ziar di leen nuyoo fii ci Gandiaye Gandiaye li ñu fi ànd tey mooy euh, fan si club Maodo Faye ñoo koy defal sargal da ndey Ndeye Fatou ndeysaan gis ngeen mbooloo mi gis ngeen ko ñoo ngi nii ndeysaan fa seen dugg ci soirée bi waaw digtal leen li fi nekk ci kàttanu yàlla nit ñaa ngi nii ndeysaan fu la leen di génnee dégg ngeen ko moom la ñuy woy noonu ndeysaan moom Maodo fay kon asalaamaaleykum rahmatullah dugg ci biir wan lan moo fi nekk. nuyu nañ la. grand final la eh, la. Ibra tay yena xewle euh sen fans club di len sargal te ñu wax fay to waxu ñu Ibra mbay parce que gis nañ ni relation bi yag na lan mo andi loolu. Eh, Maodo nek sama grand frère yerma eh, ma ko Zal fay Mbaxal euh ma content si ñom lu nek ci man ñoko def si walum ar ngay sama grand tamit ñu tassé fu bari mais tey Modou moo xewle tey tey kémtu la sama kémtu lay kàttan dinaa ko joué fii ci Gandiaye waaw Modou sama ganaar la sama lëpp la moo def si man lépp. dëgg la su ma digganteeg Maodo loolu dafa yàgg depuis Babou Ngom ba léegi ñuy ànd waa ànd bu rafet Babou boole ñu ñëpp boot ñu waaw yar ñu ba ñu toll fi ñu toll nii waaw boobu ba léegi taxale ko nag si jàmm. parce que Babou ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram waaw bésu Maodo bi it Babou loo ma si laajee dinaa ko si wax barke Serigne Touba. mais bés bi lan ngeen ko préparé en ko nam parce que kuñ ne yaande ko du mooy sa maam waaw géwél du la jommal waaw yaande ko du moo jur sama yaay di ñuy wax Fatou Mbaye Fatou Mbaye ma may taaw ma may Ibou Ñing mais bésu Maodo bi tey dañ koy wàcce bu neexee yàlla yu waaw ñoo ngi gudd fan ak bésam bi lu mu ci namm yal na ko ci yàlla def lu ci bëgg yal ko ci yàlla def waa tey di nga gis lu garaaw de tey di nga gis lu doy waar di nga gis lu doy waar yéen ba di caméra ba léegi tey ngeen di caméra lu nga xam mosu leen ko caméra ma maa lax loolu man Ibi Ñing maa lay dagg ak jàmm kon Ibrahima ñoo ngi lay xaar ci biir nga woon ñu naka ngay dóoree say sabar tey ngay gis tugune gu ñuy tugune ñaari loxo birka njootina anandita champion ke latir diouf njogo ke latir diouf njogo ine njaaya xaada pirke njooti nanandiɗa sampiyon ke latir diouf jogoyne njaya xada e pirke njooti nanandiɗa sampiyon ke yogoy ne njaaya xaadaye dangal Maodo Faye Mbéjé ndeysaan ndey Fatou di leen woy sunu baay boobu moo nekk noonu ngom yàlla gudd fan te wér oh macha allah macha allah ngom macha allah yàlla ko fi yàlla bàyyi. moom moo nekk noonu liggéey na ba wàcc ndeysaan jox rakam doomam moom Mamou Ngom sunu baay boobu moo nekk noonu moom Babou Ngom ndeysaan gàcce nga laama moom bégal na Sénégal ndeysaan moo nekk noonu lii daw na yaram ndeysaan moo daw na yaram ndeysaan Ngom lii daw na yaram lii daw na yaram lii daw na yaram ndeysaan sunu baay boobu moo nekk noonu moom ngoom ndeysaan oh sama yaram daw na sama yaram daw na ndeysaan sama yaram daw na ngoom ndeysaan guddalu fan guddalu fan ndeysaan kontaan naa salaamaaleykum ndeysaan sunu baay bi moo nekk noonu ngoom ndeysaan ku doonu fan ngoom Sénégal ndeysaan boobu yëngu sama yaram dawatina ndeysaan ngewel juddootina ngewel yëngu na ndeysaan baabu moo nekku ndoy ndeysaan moom baabu ngom ndeysaan ñëwatina benn waaram ndeysaan spectacle feeñ na ndeysaan liggéey rek moo am solo ndeysaan liggéey rek moo am solo ca Nioro di leen di fépp ca Medina Sabax ma ne ko ni nga doon def ba bembete di nga di ko tulli noonu ngay def ba di bembete di la tukki nga nga tëgg lamb ci ñu indil ko sàngo mu nekk lu tuuti ñu jébal ko ko moo ñii di tëgg ñoo bokk ndey ak baay ma di leen fi fekk maa ko mun a nettali ki nekk xale bu tuuti magam nekk xale bu tuuti seen ñaari ndey yi bokk benn ndey ma jàngal jabaram mu mën Fatou Gueye xëcc ko teg ko ci wetam muy sotti ceeb def ci ma jàngal yaayu Momo Ngom Fatou Gueye xëcc ko teg ko ci wetam kon mbir mi sotti ceeb def ci la te dafa war a leer nag te dañ la war a naw nag gis nga ñun woykat fu ñu war a mun a taxaw. boobu sa papa mun na lu ne sa yaay di saya nah, lu ne nga dajale say njobot di leen di tete ku ci mun dara man de man dara bu ma dana gi gene temer téeméer saraxe ko ne ko saraxu Xadi Juuf ndax lu ma mun yàlla ak mom waye ñii ku ci nit mun lu ne yow bo dal ku bot xaj bo la teyel baba lu sotti am borom waye dama la ne ba dara dul dara man yow la woon ak Khady ak Fatou Gueye mu metti lool Ngom Saara Mbaat ceru ay téeméer juróom fukk di ceru ñaar téeméer ba seere yàlla ak jaal galan di tëgg yàlla ak Baba Ngom la ba mu méttee ba métti ñun tëngeej lañ nekkoon sam papa nekk ak ñun tëngeej ba génn àdduna ñu indi ko gàncax fii Baba Ngom seere lépp kon nag tey bu demee ba mag boo ba toog fii tey. Maodo ñu koy ñëpp di ko coow grâce à Babou Ngom du ma jooy bi laa walay ma jooy damay wax dëgg tey teel a tax sama xol dafa sedd ci Babou Ngom te aw fu ma ko waxee mënu ma taxaw ci rajo wax ko damaa bëgg rek yéen waa Gandiaye ngeen gërëmal ma ko yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam ba teel ko Makka barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. booloo ne jërë ngeen jëf. dama yaakaar ne man ba ma juddoo sama nee ak sama baay di tëgg ba léegi maa ngi soo a am tey ndam ci galam jël xale bu tuuti yore ko sama yaay namp jox yaayam mu namp ndey ak baay ma jël sama yaf xam ne baax alalu yàlla la du ko jox lu dul xaritam ma jël dafa rek di ñaan ci kattanu yàlla yal na ko yàlla fóot ba mu set ma ut sama saabu ak sama omo ut sama kotol di fóot ndikee yàlla jël na as toq ordre sawel toqalal ma ko ci ndox mi mu set wecc

ñuy dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba ma tabax kër dugal leen ca mook mbay géey ñu nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba kër ga daanu mbay géey ne grand ma ne ko ah mu ne ma ñu ngi ñëwaat ci kër gi ma leen ñëw leen ñu ñëw ci kër gi toog un na deuxième année ñu ne seen deret ñu lug na leen li may dépensé seen trop mais dañ may déchargé tabaski sama añ tam xarit sama reer weeru koor sama suukar korité ñu ñëw def li ñu war a def ci kër ga taxaw ne ma bu ñu ko mënoon dootoo def dara da ngay jaaxam rek non tey la bésu wax de damay wax de kee dafay toll fële naan Maodo kay ñu ne day diir baabu mbagg ñu ne day dugg na fii génn na fii Maodo du diir baabu mbagg kan mooy mu jëm lu dul baabu baabu formé ko kan la war a diir mbagg ku tut man kan la ci kan la war a rek bu dee nit ku bon laa Maodo dana bon bu dee nit ku baax laa Maodo dana baax ci man la jël exemple bu loxo bi setee xam ngeen bu loxo baa bu diisee xam ngeen bu loxo Maodo diisee xam ngeen dama leen noonu ca Sorano dum jaay ko mbalas taxaw mu ne ma Babacar est-ce que boo fi jógee di nga am relève ma ne ko l'homme le jeune mu ne ma lu tax nga wax ko boobu du njaaku ndoro sa ngi taxaw vie seen faya ngi taxaw kenn teewu kenn théâtre national de la Sorano ma ne leen le rythme séeréer pèse très lourd mën nañ leen a bàyyi olof yeeg bambara yeeg soose yeeg lépp loolu ku ne def sa yëf mais bu ñu yegsee ak rythme séeréer loolu lu ngeen defoon ci àddina ngeen doon suukar ñu sotti leen ndox ngeen seey leen ko nag rek waxuma leen ngeen ñaanal ko nit dem di ko liggéey pour mu jàpp ko non non c'est ñaar waxuma leen ngeen ñaanal ko pour nit dem di jéem ci moom lu bon c'est possible xam nga li ma bëgg ngeen ñaanal ko cat teggi ko cat rek laay ñaan mu teggi ko ci kattanu yàlla dama ne kii doomu ñay la bu guddee fan toll ni ñay toll mu toll yàlla rek a ci man gaay te li may wax bu fekkee ne damay tricher mbaa tibbeewu ma ko ci sama xol bi bu may ñibbi yàlla bu ma yegg sama kër man Babacar Socé mbooloo mi ngeen baal ma ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahiim yal na jeex ci alhamdulilah rabil alamin wéy rek laa lay ñaan dégguma ba léegi amateur yi dégg ko ci seen nopp te woy cosaan la jiga ma xaalis fe la xamee te xadija bu Ismaïla Habibou yee te yarama ñaajaan doole yéen ndey faatu ndere moo fa moo fee ba talayee te faa ko te ñu ma bandaa mi payee te paye su ko kaa kamoon ngi ñëw jëkkatuma ko ba léegi ci lamb pelu wala loolu amoo bee be dele faa ba dew ñi ma bandaa mi payee paye su ko kaa kamoon ngi nuyu Maodo di nuyu Ndey Fatou di nuyu ñima andal c'est ga ñun groupe lañ lamb rek lañuy dund ganjay fi la yaro fi ganjay un bi la amé en 36e mais nak yalla dafa def man ma bëgg lamb di dundu lamb di am fierté boy di joggé Gandiaye di ñëw di toj Dakar muy Maodo di Momo man nee naa leen jàppuma leen Babou Ngom jàpp parce que Babou laa xam ba nekk ay xale muy def lu ne bu fekk ñu fi li may wax Maodo bële moom laay wax ba euh, Momo dama leen ne ay xale ngeen ñun Gandiaye la ñuy tiitaroo man na ku ma xam xam maag mbër yi ñii bëgg aw ma woykat aw ma tëggkat nag am na ay xarit. ziar nañ la. may delloo ziar. Euh, lan moo doonoon teewaayu tey yu gànjaay. lu lu ñëw pour bëggal leen waaw. léegi dañu gis yow nga ñëw maanaam yëngu bu baax a baax. <laughs> parce que dañoo am yaakaar si man moo moo tax ma yëngatu bu baax. Mm-hmm. dañ maa invité woon rek moo tax. waaw. dañ laa invité woon tey. waaw moo waral teewaay waa waaw mais dañoo gis bi yow bi nga ñëwee da baaku baaku lu neex sax. ah <laughs> loolu moo tax ma ñëw di pour bàkku. dëggal gars yi. làmb fekk dem ci làmb fekk leen fa ñoom na ndeysaan oh. ndeysaan xoolal ma lii lii séeréer rek la am Haalpulaar bi amul lii ndeysaan Joola bi amu ko waaye cey sabar cey Maodo Faye ak Ndeye Fatou cey Maodo Faye ak Ndeye Fatou gañaay wàcc na ndeysaan oh. Maam Jaara moo nekk noonu ndeysaan moo nekk noonu ndeysaan moom lañ tuddee bés bi tey moom Mamadou Lamine Thiam moomu waa kon xale gànjaay ñoo nekk noonu ñu lay fay ñu lay fay bu baax a baax teewaay bi xanaa kontaan ci Maodo Faye rek suñ doomu ndey suñu xarit lépp gore ah Maodo xewle rek ma tew waw programme bi neex na trop do mom bu wote ñepp wara tew parce que nitu ñepp la da xaritu ñepp waw fasiyene ko jappale ba bët sët waaw waa neex na trop neex na trop neex na rafet acce na trop fàcce na trop Maodo suñ gaañ la waaw bu xewlee dañoo war a ñëw teewal ko kontaan nañ trop waaw. loolu moo waral maanaam nga waaw te xeeb ko nag. Ah. xeeb naa ko trop parce suma gaañ la suma doomu ndey la. te en tout cas dañu wax ne yow pare ko. non naa ah. waaw fu mu toll nii moom. Ah. pare naa si parce suma doom amatuma kattan. bés bi neex na macha allah wax dëgg fii la Maodo bés bi mel na ni daal euh, mbàccum gerte li ñuy wax mbàccum gerte. noonu la mel neex na trop macha allah kontaan nañ suñu xol yi fierté nañ suñu nit la fan si club bi ci la ñu nekk macha allah di ci pelloon amul benn problème di kaf ak ñun di ree ak ñun. mënoon na wax ne suñ suñu mag la affaire yooyu may xoolu loolu dañu boole ñun ñëpp def ñu benn fan si club bi chaque jour ñu ngi ci di di di di pelloo rek chaque jour. Lac TV. waaw waaw franchement tay mom jour bu mag la ci agenda culturel bu Gandiaye parce que li je peux dire que c'est une première muy ko xamné ni depuis bam mu ndaw la ko baabu yor diko ko jangul école jangal ko teug mu nek nak fierté parce que Maodo xamul lu teug ñun bañ juddo ba tay ci teug lañ ko xam ci lamb gañjay ba muy doon bapat ba ni muy dekk Bressan presque plus de 20 ans mu def ko ci teug wa mu doon xalé franchement tay mom dama contane dama contane buma gisé rek baabu yéeg mu fekki ko Maodo tok muy wone li ma la ko waxo kérok mané ko yéna bok dafa neex rek ñun ñu ñew waye bu naxaré ñun dañuy dem te gis nga fii ku la wax ne bàyyil say mbokk day dem jàpp mbokkam donc yéen a bokk ñun bokkuñu 항목으로 모두 배수하վել 네 야섬 터프카 안오네 까말라든 이 또, 아무저 컨티네 너 안오네 된 바로 아엠반 parce que ku gaawoon na rek fa la yo i ku gaawoon na rek fa la yo in wene ngarna neen fop ka jeg yaakaar in rek a bina in xale tar in fop i teew meen i Maodo fa Ndeye Fatou moom a kene den a mosax i a kene a mosax xaƴa xa taalibe ndef na took den rek den mbaratu njang i parce que o ga'anga ne da ngenoon xaye fo faley fa ye da layna faley fa mosu yo i faley fa mosu yo kontaan rek dama kontaan dëgg fa yàlla ñoom tamit aw ma kenn ku sama mag yi te nañ ma bëgg nañ ma mooy kon bu ñu xewle man damaa war a teew. dëgg fa yàlla ma leen di ñaanal daal ma leen di dañ fi gis loo xam ne si lu doy waar ne si baabu waaw lan la waaw man dama kontaan papa moom daa nekk koo xamante ne nii papa moo ñu yor depuis ñu nekk xale xam nga tamit mu téye ñu téye bu rafet daal kon lii dafa rafet lii dafa dafa waroon yàgg am sax mais xëy tey la ko yàlla dogaloon mu am mais tamit ñu koy ñaanal moom yàlla bàyyi ko suñu kanam ba ci kanam. ndeysaan nekk dalay na yee far xamadina daal. no, que no. muy dëgg. ngeen bokk ndey ak baay. muy dëgg. te mënoo cee ñàkk a wax lan nga ñu mën a wax ci Maodo. Maodo li ma leen mën a wax ginnaaw bi ñu sant yàlla sant suñu ñaari waajur Maodo dafa nekk caab ba mu nekk xale bu ndaw la wàcc gànjaay munoon naa nekk bandi munoon naa nag wéyu waaye nag ndeyam liggéeyal lu ko loolu Maodo dafa teel a ñàkk papa mais dafa ñëw rek baabu ngom boot ko mu nekk xale bu ndaw li mu wax fii tey du loo xam ne dafa fekk sama doom dina law rek mais dama naroon ñëw dëgal ko parce que ba muy metti baabu ngoom la woon si nekk si turam ak santam di nuyu waa site bi yëpp waaw di nuyu seex aussi kontaan nañ lool sa liggéey waaw kii bi niñ def ba organiser ko mooy fans club Maodo donc ay nit ñu booloo la woon ne nañ ñëw sargal Maodo a gis nañ li muy def ci réew mi dañ koy ooyee sax ñun Maodo international donc si lañ créé le fan club bi ñëw ne nañ ko def guddi sargal guddi sargal bi nag ñu ne pour ñu def ko il faut ñu dem fekki Maodo fa dëkk defale ko fa premier édition donc moo tax ñu ñëw ba Gandiaye bi mu dëkk ñu defale ko fi waa Gandiaye it oysi nañ ko lii mooy wane ne dëkkam Gandiaye jar na ko ndax nit di nga dëkk si dëkk te doo fa jar a dëkk mais moom jar naa dëkk Gandiaye ndax mbooloo mi ko oysi fii non ñun ñi ko organiser sax ñun daf ñoo bett kon donc kontaan nañ lool ci bés bi rafet na waaw. avant ñu dañu bëgg wax ne maanaam groupe bi naka lay def ok waaw groupe bi ni muy doxee dafa nekk ay mbooloo yu dajaloo ku ci mel ci ñoom Ndukumaan donc ku ci mel ni ñoom Saaliw ñoom Mbay Weñ donc ñoom ñëpp ñoo dajaloo organiser def benn groupe WhatsApp puis groupe WhatsApp bi si lañ defar suñuy carte membre jaay carte membre yi pare ñuy ñu ne comme jaay nañ carte membre te dañoo am ay journée journée donc nañ def fixer benn cotisation pour dem sargal Maodo fa mu dëkk donc moo tax. group bi yëpp nag ànd cotisé ñu dajale ko ñëw fii ci dëkk Maodo pour sargal ko waaw. waa dëkk bi bu leen dalalee ak leen wuyu si waaw waaw vraiment dëkk bi dañoo ñëw sax ñoom ñu nangu mbir mi suñuy loxo waaw parce que boo demee bu Ngulang nga fekk fa waa Ngulang te siège yi nga gis yëpp ak bàyyeet organisation bi ñoom ñoo ko def. booy ñoo ñëw futteeku ñëw bokk ci bés bi ñëw na yéen da ngeen ñëw rek am xelaat bi mais ñun katan gën mën-mën bi ñun ñoko ko koy defal ndax ñun ñoo dekkat mom kon donc motax ñun dañoo porter projet bi rek indi ko gànjaay mais ñom ñoko ko mëne kon donc wa gànjaay ñu ngi leen di gërëm bu baax wa gina bi sante yàlla julli ci yonent bi sante suñu wa ñaari waajur ma ngi gërëm wa gànjaay di gërëm sama mag kon tan na ci ñoom fi tay trop wax deug yalla bégal na mom yalla ko fi yàlla léegi xam ne ñoo andi bés tey maanaam bi ñu am ba ba programme lii nii lan nga lan ngay wax waaw boo xoolee gàncax yi ñëpp dañuy béy ay béykat lañ mais dañoo bëgg li may def mu jaral leen lu nekk moo waral tey moo woote ñëpp bàyyi seen liggéey ñëw may gërëm tamit waa gàncax yëpp di gërëm ñi may àndal sama groupe sama gars yi may àndal rawatina mbay sama mag ak booy yëpp maa ngi di. bëggee bu baax a baax yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñoom tamit vraiment jàppale nañ ma di gërëm ñi ma àndal ñoom Ndoukoumane Sonar. Hmm? ñooñu fan si club bi lañ. waaw ñooñu waa fan si club bi yëpp dama ne di beral nuyoo parce que ñoom tamit vraiment ñu baax lañ waaw kontaan kontaan naa trop baabu dafa maa bëggal parce que yàgg naa koy bëggal dañ doon ànd maa moom ma koy bëggal di toog si ginnaawam di ko kontaan loo kon tey dafa fay bor bi nii mais kontaan naa trop li mu def nii nag. waxuma ne man rek mako ko a am ci mom mais bëriwul de ku ko mun a am si moom yombul si tegg gat wala ku dëkk ci dëkk wala fenen même domam mo yombul boss sama sama xarit la babu dafa ma dafa nek sama mag mais dañu meloon ni mag mom ay cheikh biñu ñuy man ma doon jadd ay ay koñ mu may jubanti waaw ba tey yàlla dogal mais ñun ñu top ci ginaam ñu ngi tegg domam ngi tegg moo moomoo sama doom la dara xaju suñ diggante li li nga gis fii loolu mooy li fi am gars yi ñooy toog bi wër di wax rek xam nga nit moom buy wax te xamul da koy won mu gis da ngay ñëpp ñu gis li ma leen won nii moom mooy li am parce que am nga nit ñi dañu am complexe moomoo xale la mën nañ ko yóbbaale ci côté bu nekk mais man magum jëmm laa mënuñ ma yóbbu sama diggante baabu dara amu ci dara mosu si am te dara si am parce que man xam naa fi may taxaw jox na ma cër jox naa ko cër bi waaw. aw ma seen fay waa koñ bi dañoo baax di sama jabar nag ah waaw di gërëm sama jabar ay sa waaw neex ceeb moom vraiment moom it bëgg na ma suturaal na ma jàppale na may demee ba yegg moom da si am paar bu rëy jàppale na ma si côté bu nekk li ñuy wax jigéen day soppi góor dëggal man sama jabar daf maa soppi parce que beneen sens bu ma fekkoon maa ngi dugaat ci beneen sens te lépp grâce à moom yàlla na ko fi yàlla gërëm ñëpp gërëm yéen tamit yéen waa yow sama doom nga yow ma la gërëm dama lay ñaanal yàlla na la fi yàlla bàyyi yaag sa waa ji nga àndal nii muy ku baax moom it vraiment la jël te ñàkk ki ñaan vraiment yàlla leen yàlla jàppale avancé loo leen tamit gars yi gestu leen waaw gestu leen ngeen ngeen gën ci gis seen bopp parce tamit seen liggéey bi dafa métti. Bye.